tër ko jox ma loola sëñ Mbacke la dina ko saral sëñam daal mel nañu bëgg a jàng ba am di gën a mag ci hydraulique ci wàllu ndox ba pare joxe la sëñ Salim sëñ Salim yëkkati maamu rahmatullah bugaan délégation waa Walfadjri yëpp bugaan ñëw di magam di góoram di conseil di féeteem nekk sa lépp waaye mu ngi tamit nekkoon kenn ci moom nekkoon jigéenam tabaarakallaahu moom yegg si na ak délégation bi man dem te yëpp sëriñ bi du bàyyi toogal toogal mu gan sa jigéen itam yaa awa a a 50 communication ci ngi doon moom yi mooy nit ku baax la nit nag peut-être soo deewee la ko mais baax moom dama lay wax na la doomu con sekk bi doomu con sekk bi ah yal na ko yàlla yërëm te yeexeñ man daal naa ne daal ñàkk naa nit ku baax man kàddu yëpp nekk benn kàddu mu di ma musul boobu mu amoon rek lay wax madame rek madame rek loo ko wax rek mu ne waaw madame waaw moom it dama koy ñaana rek man aw ma lu ma wax damay ñaanal moom it rek man ñaan rek laa mën di sant yàlla bu baax a baax. waaw. waa kër Papa Thione am nañu iman xam naa ne waa nañu iman lool. waaw. wu ci li nga xam ne mooy réseaux kenn xamu ko moom photo mi nit ñi am sax man maa ko génnee. Mhm. ni mu gaañoo. photo yu bëri man maa ko génnee dañ bëgg gis ak kan moom moom yi kenn xamu ko ñu bari xamuñu ko sori woon na ci yow torop ndax boo xoolee buñ jëlee photo yi ci yow kon cela veut dire que am nga fu ngeen fu ngeen fu ngeen ay sori na kay moom mi sori na de moom mi sama diggante moom mënu maa wax su may wax ay moom mi nii sax nit ñi di ko na loolu waaye mu yobbale lu bari nag xam naa ni man moom mi yóbbaale na lu ma ko dénk yoonu yonent yàlla moomu moomu sekk yóbbaale na man lu ma ko dénk. barke yonent nga xam ne moom la fi moom la fi bàyyi mu yóbbu moom yi mooy mooy teg loxoom ci doomam yi di ko jaale ñëpp nag di ko jaale àdduna bi yëpp ñëpp nag waaw seen waa kër yépp njabootu Papa Thione am na ñu imaan man loolu xam naa ko imaan nag si nit lay ne. këram ah, am ay na ko normal moom it li mu liggéeyal bugaan loolu rek la mun a am moom it télé bi moom it moo ko téye woon ci loxoom barke yonent ci yàlla moomul dafa demoon jàngiwaat keroog bi may wax dafa feebar mais du ma ko wax du wax man moom it fi ma toll ci moom ruus naa toog ci télé bi ñëpp di xool may leen moom it dafa dem France dafa dem faju dafa feebar déedéet yooyu yàlla ko yàlla yërëm daal moom it yal na ko yàlla yërëm sedd na ba dee am na personnalité ba dee nit ku nit ku dëggu la woon ba dee moomi daal li ma mën a wax si moomi daal man daal xam naa ni ah ñàkk naa xarit bu baax ku ma yërëm lool